asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu ko li ñu seeti bopp xibaar yi. pencum réew mi ñoom naka am nañu waxtaan jëmale ko si ñaari bor goo xam ne naka néegub député bi ñu ngi ko fas yéene fësal pour gis naka liggéey nañ lu aju ci wàllub yoon yi koppar guñ sa tëral naka mu ngi ëpp ci benn billion ci ñëwee naka si xaalisu si te waxtaan gi naka ñu ngi ko am sa talaata bi sa pencum réew mi. EU seen mbootaay gu ñu yónnee ci biir réew mi si jamono sànni kàtta gi pour ñu bàyyi xel naka lu aju ci wàllu sànni kàttaab réew mi ci talaata bi ñoom ñoo génnee naka seen report bu mujj mu aju naka ci gestu goo xam ne def nañ ko si jamono gu réew mi doon yëngu ci mbirum sànni kàttaam jiitub réew mi. kii groupe ñoom naka si arjuma bi am na ñu bés boo xam ne nag boobu la ñu jagleel seenub liggéeykat yi pour naka ñu dund dund gu neex jaarale ko nag seenub diggante ak seenub njaboot ji ndaje gi nag ñu ngi ko am sa QCD si bésub indépendant bi ndaje gi dañ ko dee faral di def at mu jot nag mbootaayu social club bi ñoom nag ñoo ko dee def si njiitalub group ci chairman bi muy wuyo si Mohamed Dia. mbokk yi yow leen nañ ko yaatal ci biir xibaar yi ñu tàqalu te dellu pencum réew mi ñoom naka am nañu ab nangoto jaarale ko ci koppar bi war a toll si benn tomb bu juróom-ñetti billion ci xaalis yi dalasi koppar googu naka dañ ko fas yéene jëfandikoo pour gis naka yaatal nañ wala sax defaraat nañ lu aju ci wàllub yoon yi pencum réew mi ñoom naka si talaata bi am nañ naka ab waxtaan jëmale ko naka ci bor goo xam ne ñu ngi ko fas yéene jël ci ñaari banqaas banqaas bu ñu naan Islamic Bank ñu ngi fa war a jël naka koppar gu toll si fukk ak ñett million ci xaalisi dollar banqaas bu ñu naan Arab Bank for Economic Development sa foofu naka ñu ngi war a jël bor bu toll si ñaar fukki million ci xaalisi dollar lii naka matuwaay la goo xam ne dañ ko fas yéene jël jaarale ko naka ci loxo ministre bu ñu dégg wàllu koom-koom gi ak doxalinu koom-koom gi yóbbu ko naka ci néegub député bu fekkee ne nag député yi am nañ ci ab nangu boole ko koppar naka nañ ko fësal ci biir réewum Gambia bi ci waxtaan goo xam ne naka kilifa yi am nañ ko fa député bu saami moom naka wax na lu aju naka ci mbiru bor bi ak itamit nuñ koy mën a bàyyee xel mu wax ne naka mbiru bor bi nañ ko yóbbu naka ci ab comité goo xam ne foofu la ko yelloon pour naka ñu def si ab gestu waaye naka loolu député yu bari dañ ko dàqalul ne naka dañ ko waxtaanee ci néegub député bi ñoom neen ñu am si naka ab nangutoo ci wécci wante kàddu goo xam ne naka def nañ ko jëmale ko naka ci mbiru bor bi député yi naka am na si ñenn ñoo xam ne naka am nañ ci ab nangutoo pour gis naka bor boobu noonu jël nañ ko ko waaye naka am na si ñeneen ñoo xam ne ñu ngi waxtaanee naka jafe-jafe gu mu indi réew mi ëllëg bu fekkee ne naka jël nañ ko tere terewul naka koppar gi ñu ne dañ ko fas yéene jël naka jaarale ko ci bor pour naka liggéeyaat yoon yi naka balaa dajewu OIC bi am na si yenn député yoo xam ne naka ikkati nañ ab laajte pour xool naka satta ak matuwaay goo xam ne naka boobu la kilifa yi di jël pour indi naka boor bi ci biir réew bu Gambie bi ak itamit nuñ ko fexee ba gis na naka fay nañ ko député bu Lowa ñoomi mi wuyoo si Matar Dieng moom naka ginnaaw bu na gaaral kàddu wax na naka yenn mbir yoo xam ne mu ngi aju naka ci wàllu bor bi ak itamit naka la réew mi naka di mun a demee te fekk naka duñu jël bor si benn banqaas naam bu wulli wees mi député bu wulli wees moom itamit gaaral nag kàddoom di laajte naka lan moo war a tax réew mi naka di sukkandiku ci bor mu ne saa yu nekk rek bu ñu soxlaa def dara ci réew mi foog ñu jëlee ko si bor te a bor yi nga xam ne ñu ngi koo leb daf ñoo isil naka ab jafe-jafe ëllëg xanaa réew mi mënut a taxawal boppam te fekk naka sukkandiku wuñ si ab bor nu ñoo defal suñu bopp dara te fekk sukkandiku wut ak bor ndax tamit kilifa yi mënuñoo tëral ay sat yi génnee réew mi mi naka ci mbiru bor bor bi nga xam ne naka kilifa jël nañ ko dinañ ko fay naka si juróom ñaar fukki at ak juróom te naka bor bu nekk buñ ci koy fay ci téeméer bi naka nañ ci yokk fanweer ak juróom kilifa yu nekk sa pencum réew mi ñoom naka sànni nañ si kàttate naka am nañ ab nangu toog pour réew mi jël bor boobu yaatal naka yoon yoo xam ne yooyu la ñu fas yéene defaraat ñu ne lii naka na doon ab mbir boo xam ne naka dafay wàññi jafe-jafe gu askan bi nekk di jànkuwanteel ci wàllu dem ak dikk bi ak i tamit bu ñëwee naka si mbirum jula gi am na ci yenn député yoo xam ne naka nekkuñ fa woon ginnaaw ba ñu doon voté loi bi nii ndax naka ñu bari ci fan yi naka duñ dee teewlu ci néegu député bi yenn yoo xam ne naka ñoom ñoo naka ñoo àndandoo ak ministre bi pour wecci wante xalaat ci mbiru bor bi waxtaan bi naka ñu ne woon dañ ko doon commencé fukki waxtu ci suba waaye naka dem nañ ba si bëccëg bi commencé wuñ naka waxtaan bi te lu ko waral mooy naka député yu néew ñoo teewlu woon naka si pencub réew mi li député yi di bañ a teewloo si pencum réew mi mu ngi gën a bari te naka ñu ngi ko bàyyi xel te ñii ñoo doonoon ñoo xam ne naka ñoom ñoo tegoon daan jëmale ko naka ci kaw ab ministre ci li mu bañoon a teewlu si néegub député bi léegi naka mbir mi mu ngi kopp naka ñoom ci seen bopp yi ndax si jamono ci ñoom ñoo dee bañ a teewlu si pencum réew mi mbootaay yëpp European Union bi seen yenn ndaw yoo xam ne nag indi woon nañ leen ci biir réewu Gambie bi pour ñu bàyyi xel lu aju ci sànni kàttam jiitu réew mi ci talaata bi ñoom nag ñoo génnee seen report bu mujj goo xam ne nag bindi nañ ko ñu wax ne nag mbir yooyu la ñu bàyyi xel ci mbirum sànni kàttam réew mi ginnaaw ba ñu doon sànni kàttam nag lu aju ci wàllum jiitu réew mi. ci report goo xam ne naka bind nañ ko wax nañ naka yenn dellu ginnaaw yoo xam ne réew mi am nañ ko ci wàllub sànni kàtta gi ak tamit yenn sart yoo xam ne naka dañ koy mën a yokk pour gis ne naka am nañ ab yokkute bu ñëbbee ci wàllu sànni réew mi ngir gis ne naka mbirub sànni kàtta gi dina jaaree naka si njub si report bi naka bind nañ fa ñaar fukki sart yu ñu fas yéene def naka ci biir réew mi pour gis naka am nañ ci ab yokkute bu ñëwee naka ci wàllub sànni kàtta gi tamit naka gis nañ ne am na ci yenn mbir yoo xam ne dañ ko war a wecci bu ñëwee naka ci wàllub sànni kàtta gi ku ñu naan Norbert Nussha moom mu doon naka koo xam ne moo bokkoon naka si bànqaasu European Parliament bi mu bokk tamit si ñi nga xam ne naka ñooy observers mission yi ñëw ci biir réewu Gambia bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ni si jamono ji naka ñoom def nañ ab gëstu gu tar ne ko ci mbirum sànni kàtt gi te naka mbir la goo xam ne ñoom ñu ngi koo rafetlu ndax naka mbirum sànni kàtt gi jaar na ci yoon tamit naka amul benn juuj ñaaj ñu ne waaye naka am na ci yenn dellu ginnaaw yoo xam ne naka am nañ ko te yooyu naka bugg nañ naka ñu defaraat ko nabaat mu continuer di wax ne nangu toogoo xam ne nag am nañ ko jaarale ko seenu diggante ñoom kilifa yi neen bu fekkee ne naka fësal nañ ko ci biir réew mi loolu naka dina fatt pax yoo xam ne naka yooyu la ñu am bu ñëwee naka ci sart yuñ dee tëral jëmale ko ci wàllu sànnikàttaam jiitu réew mi wala sax bépp sànnikàtta goo xam ne naka mu ngi am ci biir réewu Gambia bi tamit naka dina wàññi jafe goo xam ne naka kilifa yaa ngi koy jànkuwanteel bu ñëwee naka ci wàllub sànnikàtta gi ba tey kilifa gi continuer di wax ne banxaas bi ñu dénk ko wàllub sànnikàtta gi ñi naka doon nañ ñoo xam ne seen liggéey liggéey bu noobul la te naka banqaas bu dëgër la ñu amee mu ne waaye naka seen report bi mu ngi xamle ne mbirub sànnikat gi naka am na si jàmm te naka mu ngi commencé depuis si campagne gi ñu ne ñoom naka gisuñ si benn njuuj njaaj tamit naka sant nañ yàlla benn fitna jógul ci iyo seeni banxaas boo xam ne naka boobu la ñu yónni woon ci biir réewu Gambie bi si jamono sànni kàtt gi ñoom naka ñu ngi indi ay sat yoo xam ne naka dañ ko fas yéene tëral ci wàllu sànni kàtt gi pour gis naka gëj nañ koo jubal te lii naka ñu ngi ci àndandoo ab luwaa yoo xam ne naka ñu ngi ko tëral pour gis naka indi nañ si ab yokkute luwaa yoo xam ne naka dañ koy ëmb ci luwaa yoo xam ne naka bëggub luwaa réew mi ñu ngi ko tëral mu aju naka ci wàllub njunjaaj mbirub jokkalante gi ak itamit aju naka ci wàllub diine matuwaay gi naka ñu jël ko pour gis rek kenn ku ci nekk amee nga sa kaddu te naka fekk di nga wax nag sa xelaat fekk naka duñ la si teg benn daan. observation mission bi bu ñu paree nag si seenub ndaje googu ñu ngi fas yéene am ndaje jaarale ko seenub diggante ak banqaas bi seetu wàllu sànni kat gi political party yi banqaas yi liggéey ci ron nguur gi ak mbootaay yu niti benn bopp yi ak itamit yenn kilifa yu nekk ci biir réew mi si ay bés yu ay ñu digmal si matawaay bi nag ñu jël ko pour gis nag satt yi nga xam ne xalaat nañ ko ñu boole ko naka ci mbiru sànni ab réew mi boota yub ki groupe bi nag ñoom ci arjuma bi moo tombeek bésub indépendant bi am nañ seen family fondé goo xam ne nag ñu ngi ko defee si Q City mu nekk sa Bijilo family fondé bi nag mooy bés boo xam ne dañ ko jagleel seen liggéeykat yi pour ñu am nag bànneex jaarale ko seen diggante ak ñi nga xam ne nag ñooy seen njaboot ci matuwaay bi nag Q Group Social Club bi ñoo ko jël ci njiitalub Q Group chairman bi muy wuyoo si Mohamed Dia bés bi nag dajale nañ si liggéeykat yoo xam ne nag ñoo nekk di liggéey ci Q Group bi te ñu bàyyeekoo nag si compagnie yu bokkul ñu àndandoo si ak seen family yi. pour gise naka am nañ bésu bànneex atub ren bi nag bésu bànneex gi nag chairman bi rafetlu na ko torop ne naka bés la boo xam ne mu ngi koo rafetlu te naka am na si mbégte ak kontaante bés bi naka dafa fàttaleel nit ñi liggéey gu rafet goo xam ne naka groupe gaa def jëmale ko naka ci wàllu liggéey bi ak i tamit yokkute goo xam ne naka ñu ngi ko issi ci biir réewu Gambie bi màggalub atub ren bi naka dafa tombeeg réew maa ngi màggal seen juróom fukki at ak juróom-ñaari independent anniversary te naka ndaje gi ku ko jiite naka mooy mbootaayu social club bi ñu àndandoo si ak liggéeykat yoo xam xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci banxaasub kii group bi te ñu bayekoon naka ci compagnie yu bokkul ñii ñëpp naka dañu dajaloo pour gis ne naka xamante nañ njaboot yi tamit xamante ndaje gi tamit ñu def ko rek pour gis ne kenn ku ci nekk am nga waxtu ak sa njaboot pour gis ne naka am ngeen waxtu lu aju ci wàllu mbégte ak i kontante jaarale ko ci xale yi ak i tamit liggéeykat yi Mohamed Dia moom mu doon kii groupe chairman bi ginnaaw doon gaaral kàddoom si ndaje bi jaajëfal na naka famille bi you know, really, we are a group bo hamne ñepa ñu recognize legi. You know, we are one of the biggest employers in the country, one of the biggest taxpayers. You know, mom mi ne ñu nge liggéey pour dëkk bi, you know, so maa nge wax xale yi soo gisee ñuy organize lii it's not pour ñu ñëw rek ñu am fon ñu lekk dem déedéet dañ ko organize pour suñ njaboot yi ñu xamante Omar Led moom mu doon Q Group HR consultant bi gaaral na fa kàddoom kii tamit Q Group social club bi ku ko jiite muy wuyoo ci Lamin Dabo ñii ñëpp naka wane nañ seen mbégte ak seen kontante si kilifa yoo xam ne naka ñoom ñoo jiite banxaasu Q Group bi matuwaay bi naka ñu dañ koy jëlee ko pour gis ne rafetlu nañ naka bés bi ñu ko amee naka si jàmm ñu ne ñu ngi jaajëfal naka liggéeykat yi ak seen njaboot ji ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour yegg si si ndaje gi si bés boobu. liggéeykat yi ak seenub doom yi sa bés boobu naka dund nañ bànneex torop ndax naka lu aju ci wàllu swimming pool mi maanaam sangu lekkub ice cream gi naan lu sedd lekk lu neex doon na mbir boo xam ne naka am na sa bés boobu tey naka lu aju ci jongante mbirub tàggatu yaram def nañ ko fa jaarale ko naka ci xale yoo xam ne ñoo fa nekkoon ak itamit liggéeykat yoo xam ne naka ñoo fa teewlu woon te ñu ko naka si compagnie yu bokkul bu ñëwee ci wàllu football bi Natural Water Company ñoom naka ñoo jël ndam li si mbiru football bi ñu am naka benn kiwsel buñ doon jonganteel ñoom ñu amul dara bu ñëwee naka si mbirum musical cia bi muy feccu togg bi boobu naka aji bank ñoom naka ñoom ñoo ko gañee spoon race bi muy daw goo xam ne naka dañ koy def di jël naka limon di ko def naka si kuddu bi ñu kiw siti ñoom naka ñoo gañe ci boobu waaye naka jongante bu ci gën a am solo muy tokof woo bi QTV ñoom ñoo jël ndam loolu ñu gañe naka aji team Family Fun Day bi naka dañ ko def pour gis ne naka rataxal nañ diggante liggéeykat yu nekk ci banxaasub ki groupe bi a ki tamit gis ne naka may nañ bés ñi nga xam ne naka ñooy liggéeykat yi pour naka ñu am mbégte ab bànneex jaarale ko seenub diggante ak seenum njaboot ji mu dajale nit ñoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci compagnie yu nekk di yëngu ci ron naka ki groupe family bi àndale ko naka ak seenum njaboot gi si altine bi kilifa yi naka ndar keppal nañ benn semaine bu yokkub xam-xam goo xam ne naka ñu ngi ko doon def jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi mu aju naka ci mbirub protocole protocoles yi naka ñoo doon ñoo xam ne naka ñoo dee rataxal diggante tund yi surtout ma naka bu ñëwee ci tund yi nekk ci biir Afrique te naka yokk xam-xam goo xam ne naka def nañ ko kilifa yi kilifa yi ci bokk naka ñu ngi bayee ko si mbootaayu ECOWAS mission bi bu nekk si biir réewum Nigeria. yokk xam-xam gi nag kilifa yi bu ñu si paree nag dinañ delluwaat ci seenu banqaas bu nekk sa Abuja Nigeria te nag xam-xam bu ees boo xam ne nag am nañ ko jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi ñu ne nag na leen yokkal xam tamit nag na leen yokkal fit pour gis nag def nañ seen liggéey bi comme ni ñu ko séentoo si ñëm su ñëwee nag ci tund nekk si Afrique ginnaaw ba ñu ndar keppale benn semaine ndaje goo xam ne nag ñu ngi ko doon am sa Banjul pour ñu yokk xam-xam loo aju ci seen wàllu liggéey bi protocole si kenn ku ci nekk nag nañ la delloowaat ci place goo xam ne nag foofu nga nekk di liggéey te am nañ yaakaar ne naka lii matuwaay la goo xam ne dañ koo rafetlu ndax yokkute la ci mbirub liggéey bi ginnaaw loolu waxtaan ak QTV former high commissioner bu Sénégal bi muy wuyoo si Ibrahima Ousmane dur moom mu doon naka CEO bu diploma ak protocol consultancy ginnaaw doon gaaral kàddoom wax ne njëriñ gu nekk ci yokk xam-xam gi ak itamit yokkute goo xam ne naka def ko isi jaarale ko si liggéeyu protocol si mu continué di wax ne la kan li mbir la goo xam ne dafa am solo te naka dañ ko jaarale ak lu waawu réew mi Ndour ba tey rek mu continué di wax ne yokkute goo xam ne naka ñu ngi ko am ci wàllu liggéey bi mbir la goo réew yëpp la moo njëriñ mu ne Gambie naka soxla buñ pour dem naka ci kanam te fekk naka amuñ yokkute goo xam ne naka kilifa yi am nañ ko ci seen wàllub liggéey bi ba tey tamit mu continuer di wax ni kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci baaxaasum nguur gi ak it ñu toog si pencum réew mi doon nañ ñoo xam ne naka dañ leen war a yokk xam-xam jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi ndax mbirub yokkute la bu ñëwee ci biir réewu Gambie bi mu continuer mu ne mu ngay jaajëfal naka baaxaasub ECOWAS commission bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour bokk naka si ndaje gi yokk xam-xam gi ginnaaw loo gaaral kàddoom jëmale ko si ñu yokk seenu xam-xam Amie benn Bensouda moom mu doon managing partner si banxaasub Amie Bensouda and ko moom naka rafetlu na matuwaay goo xam ne naka kilifa jël nañ ko pour yokk seen xam-xam jëmale ko naka ci seen wàllub liggéey bi moom Bensouda doon na koo xam ne naka dafa yokk xam-xamam si université bu nekk sa Lagos Nigeria tamit naka jaar na si yenn buntu jàngeekaay yu am solo yi nekk ci biir àddina si mu bokk si ni ñoo xam ne naka ñoo gën a jiitu bu ñëwee ci biir réew mi moom Ami Bensouda mu continuer di wax ne nit ki naka saa yokkute wéeruwul naka ci ñaata alal nga am waaye naka dëggu ak fas jom gu nekk ci yow loolu naka moo lay mën a indil ab yokkute mu ne kàddu gi naka jame kan moo ko dee wax di wuyoo ci Bob Malik si làmmiñum ñu bokk si ndaje bi Steven moom naka wax na ne mu ngi rafetlu naka matuwaay goo xam ne kilifa yi jël nañ ko pour yokk leen xam-xam mu ne lii naka ab yokkute la moo essayé ci seen wàllub liggéey bi mu ne naka bu ñu delluwaate ci seenu dëkk yi mbir yoo xam ne naka yooyu la ñu jàngal nañ ko fa fésal ginaaw loolu ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci njàngub yokkub xam-xam gi bu ñu paree naka ci njàng gu ñoo def dinañ dem naka am ndaje jaarale ko seen diggante ak ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllub àtte gi ñu nekk ci pencub réew mi ak it banxaas koo xam ne nag boobu lañu ñu dénk lu aju nag ci wàllub àq ak yelleefi doomi aadama bu ñëwee ci biir réewub Gambie bi mbokk yi suñu xibaar mujj mu ngi dem nag si dëkk Gunjur bi Brikama Area Council ñoom naka ñoo nekk di liggéey dëkk googee di leen defal nag ay bohol tamit nag di defar ab lopitaan goo xam ne nag mu ngi nekk ci dëkk bu ñu naan Sambuya matuwaay bi nag ñu jël ko pour gis ne nag isi nañ ab péccite ci wàllub dundinub askan bu nekk di yeewoo sa boor boobu projet bi nag dafa bokk ci matuwaay goo xam ne nag Brikama Area Council ñu ngi ko jël pour delloo nag lempo gi nit ñoo xam ne nag ñoo ko nekk di fay delloo leen moo leen di isil ab yokkute mu tax naka ñuy samp ay booxool ak i juma pour wàññil askan wi jafe-jafe gu ñoo jànkuwanteel ci mbirum ndox ak i tamit bu ñu wee ci wàllub diine gi Omar Diadio moom mu doon naka imam ci dëkk boobu ginnaaw doon gaaral kàddu wax na naka li war a toll si téeméer ak juróom fukki kër si jamono ji naka ñoom ñoo amoon ab jafe-jafe ko ci wàllum ndox te lii naka jël na leen ci diirub juróomi at mu ne waaye léegi naka booxol yoo xam ne indi na leen ko dina leen jàppale naka si jafe-jafe yooyu mu ne naka ñu ngi sant yàlla si jamono ji am na ñeent pompe yoo xam ne naka ñu ngi dox te naka ndox mu set la nekk di génnee mu ne lii naka ne leen jàppale ci wàllub diine gi ndax naka diinub islam bi dafa laaj set te naka bu fekkee ne am nga ndox mu set loolu naka ne la jàppale pour nga set ngir nga mun a jaamu yàlla mu ne moom nag mu ngi wane mbégteem ak kontaanteem di ñaan yàlla pour naka mu gën a dooleel Brikama Area Council Mamadou Thiaré Djiba moom mu doon kansulo ci dëkk Gunjur woot bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka projet bi naka ñi nga xam ne ñooy waa Brikama Area Council ñoom ñoo ko tëral mu bokk naka ci satta goo xam ne ñu ngi ko tëral pour gis naka jàppale nañ askan wi ci ndox mu set lu aju ci wàllu courant lu aju naka ci seen mbiru wérgu yaram delloo leen naka lemp goo xam ne googu lañ nekk di fay ci anamub yokkute mu ko ne di wax ne Brikama Area Council jox nañ Gunjur li war a toll si xaaju million dalasi pour gis naka indi nañ ab yokkute ci dëkk boobu boobu mu ne World Committee bi naka ñu ngi lëkkaloo ak waa dëkk bi pour gis naka xaalis boobu noonu jëfandikoo nañ ko ci anam boo xam ne daf leen di isil ab yokkute mu ne ndox naka doon na mbir bu am solo bu ñëwee naka ci dundinu askan wi moo tax naka mbirum ndox mi la ñu jiital bu ñëwee nag ci yokkute goo xam ne askan wi ñu ngi ko soxla si wàllu wérgu yaram bi comité bi ñoom ñu ne si matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour mottale liggéey yëpp nguur gi ñu ngi samp naka ab lopitaan ci seen boor boobu ñu naan ko Sambuya Health Post mu toll naka si ñetti kilomètre jaarale ko diggante Gunjur ak foofu noonu. Idrissa Touré moom mu doon alkaalo bu Sambuya bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na naka li war a toll si ñeenti junne nit ñoom ñoo nekk sa foofu noonu te naka lopitaan googu amal na leen solo torop mu ko ne di wax ne Sambuya Health Post bi ñu ngi ko sampoon si atum 2014 waaye naka amul ay place yoo xam ne dafa doy pour askan wi naka jëfandikoo ko mu ne ndax naka dañ de am ay patient yoo xam ne naka dañ leen fa dee tëral te ñooñu naka bu ñu baree sax duñ fa dee xañ dañ leen dee yóbbu naka ci yeneen lopitaan yi mu ne waaye naka yokku yokkute goo xam ne ñu ngi ko fay am dina doon mbir boo xam ne naka nañu isil ab yokkute te naka liggéeykat yi dinañ bari tamit naka ñi nga xam ne ñooy feebar nañ am naka ñu doy ñu leen di taxawoo Faaburama Jaabang moom mu doon officer in charge bu ñëwee naka si Sambia Help Post bi moom wax na ne Brikama Area Council ñoom naka ñu ngi taxaw di jàppale ñi nga xam ne naka ñooy male ak female ward bi bu ñëwee naka si lopitaan bi mu ne am na mbégte ak kontaante pour xamal patient yi nag si jamono ji naka mën nañ leen faa admit jàppale naka jigéen ñu biir ñi jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllub léebo bi ak i tamit lii na leen itil ab yokkute ci wàllub liggéey bi mu ne ñu ngi am mbégte ak kontaante ci yokkute goo xam ne am nañ ko si wàllu wér-gu-yaram bi Fatou Tabale moom mu bayee ko ci dëkkub Sambuya bi ginnaaw na ngaaral kàddoom wax na ne fii naka buñ fi amee ab lopitaan bu tëggu dina doon mbir boo xam ne naka nañu wàññal jafe-jafe gu ñoo jànkuwante si wàllu wér yaram bi mu ne am nañu mbégte ak kontaante ñu ngi sant yàlla ñu mottali ko naka si jàmm. Ambition Ward bi nag muy lopitaan goo xam ne ñu ngi koo defaraat am nañ yaakaar ne naka niñ ko pare ci weer bi ñu digmal si te naka li war a toll si fukki lal moo fa nekkal góor ñi ak jigéen ñi ñu nekk di njëriñu ci projet bi ñu ne ñu ngi ñaax naka Brikama Area Council pour ñu continuer naka projet ak liggéey bu rafet goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di isi seen dëkk pour indi naka ab wéccite ci askan woo xam ne ñoo nekk di yeewoo sa West Coast Region. mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen des doon ànd ak ko Collé di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu meññ ñu ñeen doog jàmm jërë jëf ci topp bi wasalaam.